réer fa ci lu ñu doon liggéeyal seen réew fan yi yëpp gis ngeen bindoon naa ci am na ñeneen ñu ci bind di ànd ak suñu armée nationale di ko massawu di li ci ñaan yàlla yàlla ñu dellu si fii ci seen seeni seeni famille ñuy ñaan yàlla mu yombalal armée bi seet bi ñu leen di seet ñu ñaan yàlla mu def ci li nga xam ne lii looloo ci gën waaye may daaneel di nuyoo di ko envoyer sama encouragement sama solidarité sama nemmeeku mu di mon frère mon ami mon allié politique allié politique de longue date muy le président Ousmane Sonko Ousmane Sonko mu sell mi ma wax ko parce que dafa mel ni am na ñu ko bëggul dégg ci réew mi mais ma wax ko ni maa ngi niyu maa ngi seet maa ngi ziar maa ngi encouragé mon ami mon frère mon allié politique di président Ousmane Sonko le PROS gannaaw ba ma waxee loolu nag ma bëgg a ñëw ci ay quelques kàddu yoo xam ne du tontu waaye leeral la monsieur Amadou Ba candidat du parti au pouvoir premier ministre du Sénégal dafa yëkkati ay tuuma yóbbu ko conseil constitutionnel ni leen nañu gàntal sama candidature sama bos ak bosu joom ay fay daanaka boole ñu luñ ñu tuumaal ma bëgg indi ay clarification ci yu bare ci lool laata ma koy def nag ma leen di préciser ni suñuy avocat man comme Bassirou ay Faye def nañu lépp lu ñu war a def ci liggéey ci saytu ci indi argument de droit yi mu laaj yépp ba yóbbu nañu ko conseil constitutionnel jébbal leen suñu mémoire de défense pour démonter pièce par pièce argument à l'appui article de droit constitution code électoral lépp lu mu laaj ci suñu architecture juridique génnee nañ ko teg ko ci taabal ji pour wan conseil constitutionnel ni li Amadou Ba wax lépp ay invention la amu ci dara loo xam ne nii méngoo na ak droit comme nag suñuy avocats ils sont très très bons c'est d'excellents avocats du ma ñëw ci boobu aspect dama leen di bàyyi ñoom ñu def boobu liggéey li may leeral rek mooy lenn ci li nga xam ni yëkkati na ko te benn bi mooy nii ci li ma concerné man personnellement bu Bassirou dinaa ci ñëw ci yenn yi yeneen yi nag ma bàyyi avocat def ko ak mandataire am parce que moo ko gën a maîtriser def ko te lii may wax ñoom sax dinañu wax lu gën a euh, dëgër loolu ci ay argumentaire pour ngeen xam ne lii lépp dara nekku ci lu lu am taxawaay nee na dama bokk ci antité politique boo xam ne dañ ko dissoudre maanaam amatul xanaa ku ko dégg ci yenn journalistes yi ma yàgg a topp yàgg ñëw ci suñuy conférence de presse yàgg ñëw ci suñuy activité boo ko déggee dina la jaaxal waaye nag ku xam ñii ni ñuy doxale ak ni ñu mel ak tiitaange bi nekk ci ñoom jamono ji ba ku fëllu ñu yefe ni seen pouvoir jeex na lu ne mën nañ ko inventé ñu ni man dama bokk ci parti politique boo xam ni dañu ko dissoudre amatul moo di Pastef ñaareel bi nee nañu dama jël ay pièces yoo xam ne ni ay fausses pièces la yu baaxul maanaam lu ñu tappale yóbbu ko conseil constitutionnel maanaam daal da nga ñëw ni lii pièce la boo xam ne bii maa ko indi bu baax la ndekete yow pièce bi yaa ko inventé pièce bi baaxul loolu mooy ñaareel bi nga xam ne nee nañu moom lañ ma tuumaal ñetteel bi ñu ni coalition irrégulièrement constituée maanaam man coalition bi ma yóbbu ni ñu ko tëggee baaxul partie ya ca bokk baaxuñu wala daal ña ko defar baaxuñu ñeenteel bi ñu ne non appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi maanaam ma ci parti wala coalition bi nga xam ne moo ma investir ñeent yooyu daal mbokk yi excuser du peu nee nañu moom la ñu ma toppee ba ni sama candidature war naa war nañ koo gantal ma jàpp ni nag loolu sénégalais boo xam ni bii rek ànd nga ak tuuti gis-gis ak xam-xam ci ni politique di doxe ci réew mi ci ñaar fukki at yi ñu ñu weesu wala fukki at yi sax gis sama trajectoire dafa lay doy sëkk pour nga xam ni amul benn ci lii boo xam ne bii dëgg la waaye dañ ciy sant yàlla waa avenir Sénégal bi ñu bëgg bi ñu convoqué suñu mandataire keroog conseil mu jóg di ca dem am na ci ñoo xam ne nelawuñu parce que ñu ngi naan gaañi lan la ñu gëstu ak lan la ñu war a gisal ndox ñoom xam nañu seen njiit wóolu nañ ko xam nañu ni amul benn boo xam ne gàkk-gàkk la bu ñu mën a teg sama kaw waaye nag àdduna wóorul tax ñu am ci tuuti njàqare lu ne ñu xalaat ko bi mu xëyee dem fa ñu jox ko këyit gi mu xool ko gis ci yii moom ci boppam dafa doon ree mu ne ñii de lii lañ ñu tuumaal waaye man bettuma parce que yëg naa ni ci ay fan ci ginnaaw lu ñu man ci ay moyens ñu ngi ko doon def pour lañ bët samay mbir am lu ñuy jeex pour am lu ñuy teg sama kow lu dëgër fu ne nag seet nañ ko yëg naa sax ni wër nañoo wër a wër a wër ba ñu ne leen Cheikh Tidiane Dièye mii dafa am nationalité francaise xam naa ni ñàkkul ci yéen ñu ko dégg ñu ni dama am nationalité française ñoom itam ñu jàpp ci rek mu mel ni os à di ko wër pour xëy na fu ma génnee lee sama carte d'identité wala passeport bu France wala leneen waaw koo xam ni alwaar gii la juddoo ca Ziguinchor nday Fatou Diop Blondin mi wax really really really right now. louis dem jàngi non pas en France mais en Suisse France ma su ma faa jàngi ba ci sama liggéey sax bu ma fa dee dem du passé daanaka semaine def la may def ñibbisiwaat bu ñu ne woon sax xanaa am naa nationalité suisse mu yenu maana mu raisonnable mais ñu ni nationalité française la am wër a wër évidemment duñu ko gis parce que du lu mën a am ñu dellu si dem dugg ci ay fiscalité fu ne ñu wër fa ñu xam ne mënuñu ma gàntal ci loolu ñu dem lëñ bët sama démb ak sama barki démb ma ne leen da ngeen di sodal seen bopp yàlla day mooy bind doomu aadama maa ngi koy sant yàlla ci loolu maa ngi sant sama ñaari waajur ci bi ñu ma yaree ci njub ak ngor ak jom ba ma jombal sama bopp lenn li bu ñu waroon ba keroog ñu yegg yomal xiyaam lu ñuy teg ci man sama der lu ñaaw wala lu bon wala lu ma def wala lu ma wax duñ ko mës a gis ba ilaa yow mu diin duñ ko gis mukk loolu nag jaaxal leen ñu ni mais fu ñuy jaar ba gàntal ko rek seen expert politique yi daal di jóg ñu ni ko comme jege na saawaay mu di Ousmane Sonko ko parteem ba ñu ngi leen di jaxase ci lu baree bare nañu fa jaar rek taxal la leen boole leen taxal loolu ni parti disu waaye mbokk yi loolu yomb naa teggi man 2002 laa ñibbisi fii au Sénégal ba ma jàngee ba noppi bi ma ñëwee mënoon naa dugg ci parti politique ndax amoon naa lien bu wér ak parti démocratique sénégalais président Abdoulaye Wade bi muy ñëw Genève en 2001 en tant que président nouvellement élu maa nekkoon président de l'association des sénégalais de Genève et de France voisine mu dalal ñu ñun sénégalais ma def discours ci kanamam discours bu mu gis xale bu am avenir bu am jom bu xam li muy wax. mu woo ma ba ma ñëw ci moom mu jël livre di dédicacel ma ko un destin pour l'Afrique may ma ko ni ma boo ñëwee dakaar na nga ñu seet si mu wax collaborateur am yëpp ni ma ne leen jël leen numéro de téléphone am Cheikh bu Cheikh Tidiane Dieye mi kooku bi ma ñëwee 2002 bu ma bëggoon dugg ci pouvoir wala ci parti politique kon ma dem PDS ndax amoon naa pexe yu ma jaar ba dem gisi président Abdoulaye Wade man maa ko bëggul woon parce que bëgguma woon dugg ci parti politique ma dem dugg forum civil bu maître maam Adama Gueye à l'époque milité naa fa dix ans au forum civil ñëpp ci Sénégal société civile lañ ma xamee mosuñu maa xamal ci parti politique bi ma nekkee forum civil ci la 2008 ma dugg ci assise nationale président Cheikh du Kane woo ma ni ma Cheikh Tidiane dama bëgg nga ñëw seet si ma ma dem këram seeti mu ni ma man maay président commission valeur éthique et questions sociétales encore une fois ngeen gis ni mbiru valeur ak mbiru éthique ak mbiru mbaax ak yooyu dama ko yàgg bëgg di ko yàgg a topp mu ni ma li ngay nekk nekk ndaw dama bëgg nga nekk sama vice président wu commission ma ne ko doyen loolu ëpp na ci man man ma nekk ak yéen rek di leen liggéeyal doy na ma mu ne ma mukk dama bëgg nga nekk ko parce que ñun suñu wàll wéy na li ñu waroon def yëpp def nañ ko bu ñu leen indee ànd ak yéen lii ngeen di def la ñu bëgg jox leen le témoin ngeen continuer ko ma comprendre fi mu waxee ma nekk vice président ñu def